ñenn ci askan wi dëkk bu sell bi di Touba rafetlu lool taxawaay bi nga xam ne moom Makhtar Diop am na ko ci assemblée nationale rawati liggéey bi nga xam ne def na ko ci marathon budgétaire bi loolu yi tax nu sol seen dàll ñëwoon ci këram ngir sargal ko. tey nag euh, dañoo daje woon ak kilifa gi nga xam ne mooy honorable député Makhtar Diop. ku ne xam na nag ci weer wi assemblée national dafa am liggéey bu faamoon amoon muy dañ doon natt gafak ak réew mi. di ko xayma fenn fu ci nekk la fa jaadu ak la fa jekk ak la fa war a dem ñu gis nag euh, honorable Makhtar mi nga xam ne day doomi Touba di taalibe Serigne Touba waa Touba wóolu ko wooteel ko ba yàlla dogal mu dugg fee ca Assemblée nationale te foofa bépp député bu fa nekk da nga faa nekk ngir baatu askan wi di leen waxal la nga xam ne moom lañ bëgg a wax ca seeni gox te mënuñu koo wax waaye moom mii nag yàlla dogal mbooleem loo xam ne organe de presse la moo xam télévision la wala muy rajo maanaam ñiy natt ñëpp bi ñu xaymaa xam ne moom mooy ki nga xam ne ci lii nga xam ne ñi ngi ko doon nattal gafa kër réew mi liggéey bi mu ci def amul benn naataangoom boo xam ne toog na ca pénc ma foofa def fa liggéey bu rafet bii nga xamante ni sii def na ko fa. misaal rek mi ñu ciy joxe mooy fii nga xam ne mooy Touba ku ne xam na ne am na jafe ci wàllu inondation le président Macky Sall am liggéey boo xam ne tàmbali woon na ko fi loolu ñu gis mu soññee ca soññee boo xamante ni si soññee bu mat sëkk soññee la cant gi nag ñu di ko màndargaal ci ñaari nataal yii ngeen gis benn bi sëriñam moo ci nekk di buntam di wasilaam di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara beneen nataal bi ngeen gis ci kii nga xamante ne si mooy njiitum réew mi di président Macky Sall di xaritam di léppam nga xam ne confiance yu bare baree bari président Macky Sall jox nag ko waaye confiance ko président Macky Sall jox alhamdulilah sant nañ ci yàlla ba moom gàccaalut ki nga xam ne mooy le président Macky Sall ngeen gisaat ci nataal bi kii nga xamante ni mooy le président Amadou Ba moom mi nga xam ne moom ci boppam moom le président Macky Sall doyloo ba joxoñ ñu ko ngir liggéey bii xam ne doon na ko liggéey ci Sénégal liggéey bu rafet ngir moom la doyloo ngir mu àggale ko honorable Makhtar Diop mii nag bokk ci ñi nga xamante ne si liggéey boobu dañ ci bëgg a ànd nga xam ne mooy le président Amadou Ba moo tax ñun ñii nga xamante ne si ñooy àndandoom di ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam di ko jàppale ci liggéey bi bu ngeen gisee staffam ñëpp a ngi ni ngir sargal la ci jëf ji nga xam ne jëfal nga ko Serigne Touba ku jëfal Serigne Touba nag bu la nit ñi sargalee da ngaa war a gën a sant yàlla waaye du tee bu la nit ñi sargalu Serigne Touba dina la fay yow nag woote nga ak député yi fi daan jaar député yi fi daan jaar toog ba seen mandat jeex jaaruñu assemblée waxaluñ dara Touba yow nag gàcce nga la ma foo toog da nga siggi te xam ne Serigne Touba dana la fay. parce que dafa defe woon liggéey bu am solo comme ni ko Serigne Abdou Karim waxee sànq kon bu ñëwee waa këram war nañu ñëw tatagal ko surtout département de Mbacké rawatina commune rurale commune bu Touba mais nag ñun ñooy ay moo tax ñun ñun ñoo njëkk ci moom pour tatagal ko mais defe naa ne département bi ak Sénégal ñëpp la amel njukkal parce que def nga liggéey bu am solo ensemble bu dee ci côté jigéen ñi la ñun xeexal nga ñu ndax dégg nañ ministre de la femme bu mu ñëwee jàllale nga ay kàddu macha allah yu am solo ci moom te defe naa ne dina ci bàyyi xel bu baax a baax kon honorable defe naa ne liñ bëgg rek mooy Amadou Ba mi nga xamante ne mooy premier ministre nan ko joxal loxo tegal ñu ko loxo ndax defe naa ne buñ ko tegee loxo jigéeni Touba ndawi Touba dinañ gis seen bopp parce que mësul dem dara def dara bàyyi kenn financement yi parrain final yi lépp loo xam ne yëkkati nañ ko rek xel ci honorable Matar Diop lay dal parce que ngóoraam ak jomam moo ko ko may. honorable député Matar Diop jaajëfal lool ñi nga xam ne ñoo amal boobi jotaay rafet lool seeni i jéego di wax ne liggéey bi daal lu muy wéyal lay doon rax ci yi di woote ci ñu jàppale Amadou Ba mi nga xam ne mooy candidat am. waaye lii nag yaakaar naa ne euh, li ma gën a neex ci lii ci la bokk ndaxte man bi ma koy def dama gëm ne damaa def li ma war a def rek waaye lii soññe la gëm naa ne su ma doon dox benn danaa ko yokk ñaar su ma doon dox ñaar dinaa ko yokk ñett. ndaxte li gën a neex mooy ay nit yoo xam ne yaa ngi doon ànd ak ñoom bërki dé démb ak bërki démb tey nga dem def li nga war a def nga xam ne loolu lañ la fa yóbboo ñu ñëw ne dañ lay sargal ci loolu dañ lay sant ci sa taxawaay kon boog xam nañ ne gën ngeen maa sas danaa def ba def lu ma mënul danaa góorlu ba def lu ma mënul beneen bi di leen soññu ngeen taxaw ndaxte di sant la président Macky ndaxte ku ñu xam-xam ne ñun Macky Sall kese lañ du keneen Macky bu ne wow na ñu ne ñu ne koŋ bu nu ñuul na ñu ne kuk weex na ñu ne taal ndaxte moom la ñu àndal kim ñu joxoon mooy le candidat Amadou Ba incha allahu rabi comme li ngeen wax li ngeen wax fii yëpp ak doléance danañ ko yóbbul waaye Amadou ñoo ngi koy wax na bàyyi xel jigéen ñi na bàyyi xel waa Touba Touba nekkul ñu ñu cof de ku leen cof dañuy wadd kon boog ñoo ngi koy lancer message ko mu bàyyi xel ci waa Touba ndaxte département bi kenn mënu koo gagné te waxoog waa Touba mënut a nekk kon boog suñu xarit la suñu wëllër la waaye li ñi ñuy wax fii yëpp danañ ko wax danañ continuer ànd ak jigéen ñi ànd ak femmes yi ak jeunes yi ànd ak ñëpp pour incha allah ñu mën koo fal au premier tour ci kàttanug yàlla ndaxte ñëpp jog nañ ñëpp soñ nañ waaye nag ne leen jàppale ne leen taxaw le président Macky Sall mention spéciale ñoo koy santaat di ko gërëm di leen wax ne euh, soññe ngeen ma yëg naa soññe bi lu ma doon def dinaa ko yokk di sant ñëpp di gërëm ñëpp ak kilifa diine fu mu a nekk ci àdduna parce que ñëpp a may woo fu kilifa nekk ci àdduna moom may woo kon boog xam leen ne soññe la ci man te lu ma doon def yaakaar naa ne incha allah ko yokk